ok. gis nga da ngay euh, gis nga ni mu mel. da ngay jël jeton bi xaaral xaaral xaaral di jetos. ndox ah, bi nu mu mel ndox mi dafa weextaan. waaw gis nga ndox bi. dafa weex xam ndox mi dafa set. waaw dafa set. léegi nag bu fekkente ni jeton bi nga yor. bëgg xam lan mooy njariñu jeton. ak lu muy def ci micro. xoolal boo defee nii jarul ngay jël lépp ah. defal dànk defal dànk di jetos. Euh, nii. wan leen xoolal ni muy changé ndox bi. xoolal ni muy weexee couleur bi ni muy changé. kii de dafay daal mel ne comme meew. xool ko gis ngeen ko couleur bi mu ngi commencé soppeeku jetol bi nii lay def bu ko defee day daal di dem ba weex nga def nii gis nga ndox bi commencé changé. te gis nga li couleur bi mel ak li lay jox ci biir du bees nga ko nii nag lay daal di def li nga xam ni mooy microbe bu amee fi nga xam ni fa nga koy def boo ko fa defee weñ du fa jaar. Uh-huh. tey gis nga gis nga fii ni mu mel tey bu ma fi defee jetol doo gis weñ bu fi taxaw fi jetol bi ne weñ bu fi jaar non lii port fii fi mu nii boo fi doon bërëngu fii nga xam ne fi lan def jetol bi uh-huh. microbe du la jege microbe la jege parce que microbe euh, bëggul lu mel ni jetol uh-huh. kii moo raw javel kii nee naa la boo taggee mën na ko faj ci ni mu gën a gaawee damay dagg mu fekk ni daf koy faj ci lu mu gën a gaawee. su fekkante ne damaa dagg kii mën na koo faj. lu mu gën a gaawee. ku baax kon nan laa koy defee. Euh, da nga koy jël jël benn lu ko mel ni maanaam comme lii. lu mel ne lii. xam nga boo defee nii. Mm-hmm. jël tuuti ndox. oh lii ko meew. def ci <laughs> boo defee tuuti ndox. nga daal di jël jetol bi. daal ciy def bu ko defee boo ci defee jotal bi daal di commencé jaxase. ku baax ma yëngal. voilà voilà gis nga. lii su fekkante damaa dagg na laa koy def. léegi nag da ngay daal di jël sa li nga xamante ni. coton mooy coton bi. di jàpp di ko raxas si góom bi fi mu ne. d'accord mu daal di dindi microbe bi nga xam ne xam nga nawet. Uh-huh. microbe da ciy yomb pour mu topp nit. loolu wóor na bu ko defee day dindi microbe bi. Uh-huh. faj góom bi ci ni mu gën a gaawee. yow mi koy def ci sa góom da ngay sentir ni. microbe bi nga xam ni newoon na ci góob bi abal na ma. mais di su fekkente ne que man sama karaw. sama karaw maanaam dafay karaas. waaw maanaam karaw koo xamante ne bii ne day bàyyi. muy karaas bi weex lool. lu ma ci diw du mën a denc. jëlal jeton booy sangu. Mhm. def ci som ci biir ndox bi nga xam ni moom ngay sangoo. maanaam damay jël lii rek toqal lu ndaw. toqal lu ndaw ci ndox bi. mais nag du ma ci def lu bëri du ma ci def lu ëpp. doo ci def lu ëpp. da koy def dose boo xam ni. yow bu laalee sa bët du la def benn effet. d'accord koy mën a sëlmoo mu jaar ci say bët du du du la def dara. d'accord mais bride bi nii. Mhm. doo ko jël di ko def ci di ko sëlmoo. non baaxul baaxul ok kon day yàq say bët. bu fekkente ni nii la da koy jël def son ci biir ndox bi ngay sangoo. Mhm. commencé jël sa njàmpe. waaw commencé sangoo parce que mën nga ko sangoo. ak saabu comme njàmpe bi am na saabu. d'accord ndox bi rek mooy am jetol. alaaji wuy ok. sangoog saabu ba pare. waaw. waaw ah, mooy loolu mooy loolu. kay euh, parce que ndox bi mooy am jetol. ndox bi mooy am jetol. ok ndox bi mooy am jetol. waaw. nga jël ci ndox. waaw jël seetal bi sotti. waaw nga ko leexale ko ko bomb ak saabu. ok mooy foofu mooy bu fekkente ni da nga yor sa saabu ak njàmpe sangoo sa njàmpe saabu léegi jetol bi mën nga ko def ci siwo ndox bi nga xam ni moom ngay sangoo après boobul foofu laa jëm quoi foofu euh, laa doon ñëw. bi ok beneen bi. am nga góom. waaw. un verre waaw nga jël ci satol bi toqal ci. toqal ci. nga jël coton bi commencé ko nettoyer. un verre d'eau. un verre d'eau. kooku la muy def day am solo. nga nettoyer bu fekkee bu fekkee flacon bi nga jënd bu 125 ml. couvert bi nga jël ci ngay natt mhm. nga def ko ci verre bi mhm. mooy maanaam su fekkante ne bii laa jël waaw bii nga jël waaw bi ngay natt couvert bi laay natt nga sotti ko ci verre bi ma sotti ko ci góom bi wala ci verre non ci bi verre bi lan moo fay nekk moo ciy nekk ah d' accord bi dama ciy def ndox ba noppi waaw nga jël jël benn couvert nga sotti sotti ko ci biir ndox mi waaw ko sotti ko ci góom bi déedéet doo ko sotti ci góom bi ah d' accord kon tey la coton ngay wut coton ngay wut pour raxase ko góom bi nettoyé ko ba mu set d'accord waaw bu sa fànd nga taf ci. su fekkente ne am nga bànn mën nga taf mais su fekkente ne village laa ma bànn ma yor ma yor buum. bul takk buum nga bàyyi loolu kenn ma amee morso nag. bul takk morso morso déjà dafa am micro. ah d'accord mais morso mën naa cee diw mën ko ci morso takk. bul def loolu yëpp. d'accord Rax si dolli moom seetool bu fekkente ni sa baaraami bu fekkee sa baaraam tànk dafa am yu weex am yooyu nga xamante ni day mel ni luy bul di weex di xeeñ. maanaam si diggante tànk yi nii. xam nga léeg-léeg nga gis ñoo xamante ni ñi mel ni man seen tànk yi fii da ngay gis muy weex wala ci baaraam bu ndaw bi ngay gis si biir muy weex boo ci dugalee sa loxo. maanaam daal di weex. waaw parce que yow yaay sama poupée bi ma jox pour ma ciy xool. looloo tax yow ci yow lay xoole euh, yaay suma coupé bi léegi bu dee fii dafa am foo xam ni day weex waaw nga xam ni boo ci laalee sa loxo ci biir boo defee nii day xeeñ kooku da ngay jël jetol bi moo ci aay bu fekkente ni da nga amee li nga xam ni mooy karas da koy jindi mais man toos man su fekkante sama tànk dafa amee commentaire ndax man commentaire day faral di ma dal. waaw man fu ma mënti dem ci rax sol. waaw mënu di sol ay ay yoo xamante ne bii sa su boobaa nan laay def. waaw su fekkee yow commentaire daf lay yomb. yow man benn comme euh, jetol bi nii. jetol nga fexe koo def ci bidon de un bu ko defee yow heure boo xëyee. Mhm. jëlal bombe ko say tànk ba mu set. parce que mooy waral bul boobu di la topp ba microbe boobu di doon ay comment ci yow. waaw waaw day daal di denc nu mu gën a gaawee. bu fekkente ni da nga am ay heure ay heure koy mën nga koy jëfandikoo. fekkente ni da nga am waga ju nëbbu wala ju làqu. duy feeñ. bu ok bi làqu nag. même heure sax am fa ci <laughs> euh, la ci yow dafa sori rek ñëwul fii <laughs> yow mi kat ñaaw nga xalaat de. non parce que lu sori. mais attends mën na sori nekk ci digg bopp bi. non foofu bu boobaa dama koy wan. mën na sori nekk bi père ku baax. xam nga dañu demoon. maanaam daal lu sori rek fii la war a nekk. Euh, jërë ngeen jëf. dëkk bi ñu demoon démb nu mu tudd.